erreur coaching la ñu daal di nemmeeku Cheikh Ndiaye nekk ab coach boo xamante ni dafa sàcc ab ordinateur portable te xamul la moo tax mu daal di koy def Cheikh Ndiaye ay atam ñu mën ko xayma ci juróom fukk moom moomee la ñu doon àtte ca baar bu tribunal des flagrants délits bu ndakaaru li ñu koy toppee sàccum ordinateur portable jàpp na ne nag li ñu koy toppee moo ko def boobee bés dafa demoon fële ca diwaanu Sonatel ngir daje fa nag ak sponsor ba mu dellusee dugg ca immeuble bi nga xamante ni moo janook Sonatel ci benn bureau mu daal di fay sàcc ordinateur portable Cheikh Ndiaye nee na xamul sax lan moo tax mu daal di jël bile ordinateur ba mu taxawee ca baar bu turbinal ba rëccu na lu tax mu def ko ki nga xamante ne nag moom la ñu sàcc turam tàmbalee am mu daal di sant baas li mu xamle mooy ba ñu amalee ab pause kii di Cheikh Ndiaye dugg ci bureau benn collègue la taseel li mu xamle mooy bile yoon nag mooy ñeenteel bi ñuy sàcc li nga xamante ne nag moom mooy seeni ordinateur parquet ba nag li mu jàpp mooy dañu war a appliquer bile loi ñi nga xamante ni ñoo koy layoon li ñu bëgg mooy ñu baal leen kii di Cheikh Ndiaye ñeent fukki fan ak juróom lañu ko daan yoo xamante ne nag du ko tëdd